الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين والصلاة والسلام على منبع العرفان سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم mbokki jullit yi mbokki lislaam bi waaye mbokki diine ji moom seen mbokk imaam Adama Top nekk fii ci dakaar ci commune Wakhinane nimsat ci cité bu ñu tuddee cité santé maa leen di nuyu nuyu al islaam te nuyu lislaam boobu mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu euh, di leen ndokkeel bu baax nag ci xat mi waaye di ñaan yàlla borom bi subhaanahu mi ñor njëggal yal na yàlla boole ñu jéggal ñun ñëpp nag te boole ñu yërëm di ñaan ñi yàlla teg réew mi ci seen loxo yal yàlla kattanal leen waaye yal yàlla dëgëral leen ba li ñuy bëgg ci réew mi itam yàlla may leen ci ndam waaye it nag di ñaanal kilifa diine yi nga xam ne ñoom la fi yàlla jiital ci réew mi yal yàlla sàmm leen waaye yal yàlla aar leen ba kenn ku ne liggéey ba nga xam ne sa waajur moom la la dénk nga yeggale ko ca nam gën a rafetee waaye di nuyu bu baax di sargal mbooleem imaam yi ah imaam yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi waaye yi nekk ci àdduna bi yépp nag waaye di nuyu it mbooleem ñi nga xam ne ñooy asaatiisa yi borom xam-xam yi yépp maa ngi leen di nuyu di leen wàcce seen wàccuwaay di leen jox garaat bi nga xam ne moom la leen yàlla cappal di leen ko nangul mbokki jullit yi fas nañ ne incha allahu taala hubbi benn bunt boo xam ne am naa yaakaar ne mën na mën na ma jëriñ waaye mën naa jëriñ itam jullit yàlla yi bunt boobu nag ñu ngi koy tuddee safinatu najaati ila xadarati rabbil alamin mooy gaal mucc goo xam ne képp koo xam ne war na ci gaal googu incha allahu taala yàlla borom bi subhanahu wa taala mën na la muccal mën na la yóbbu ba nga xàgg ci pay ya gën a kowete mooy pay suñu borom yi gaal googu nag incha allahu taala fas nañ yéen a xubbi ko waaye tàmbalee ci liñ war a tàmbalee te mooy xam-xam lan mooy njëriñam xam-xam lu am solo loo xam ne war nañ ko gën a fonk war nañu gën a gëstu li nga xam ne mooy xam-xam ngir njëriñ li ci nekk doyoon na rek yonti yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa lim wax ne man yuridillaahu bihi xayran yufaqihu fi diin muttafaqun alayhi yonent yàlla muhammad nee na man yuridillaahu bihi xayran képp koo xam ne yàlla baggal na la aw yiw ñu ne ah mu ne yufaqihu daf koy déggaloo da koy déggal fi diine ci diine ji te da koy xamal diina ji képp ku yàlla na mal aw yiw daal diine ji di diine islaam yàlla daf lay yenkewal ba man koy xam doyoon na rek ci xisa bu rëy boo xam ne yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon benn saxaaba bu màgg bu ñuy tuddee al euh, bu ñuy tuddee xabisa xabisatu radiallahu anhu dafa ñëwaloon yonent bi sallallahu alayhi sallam euh, te la taxoon mu ñëw ci moom mooy sàkku xam-xam dong moo taxoon mu ñëw ci moom waaye la ci yonent ba waxoon moo am solo soo ñëwee ci mustad mustadrak masnadu imaamu ahmad danga fa fekk mu ne an qabisata radiallahu anhu qaal ataytu nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal maa jaa bik fa qultu kabira sinni waraq xasmi wa ataytuka li tuxallimani maa yanfaxuni llahu bihi fa qaala yaa qabisata aw yaa qabisatu ma marat bi xajarin wala sajarin wala madarin ila staxfara lak qabisa radiallahu anhu nee na damaa ñëwal yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bi ma ñëwee ci yonent bi mm, yonent bi ne ma jaa abik qabisa lan moo la tax a fii fa qultu ma ne ko kabira nii man de dama nekk koo xam ne ku magee laa léegi dama mag mag dikkal na ma lool te mooy maa ngi bëgg a màkkan màggat waraqa xas mi sama yax itam sew na te mooy samay yax néew na doole néew naa kàttan lu bare bari mënatuma ko wa ataytuka nag li tuxallima nii maa yanfaxuni llaahu bihi ma ñëw nag seet si pour rek nga xamal ma loo xam ne yàlla dana ma jëriñ ca loola waaye pour wax la njëriñal sàkku xam-xam ak xam-xam ni mu xamee solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa woo wax ju xam solo teg ko ci daf ne ko faqaala mën na ko yaa xabisatu yow xabisa na nga yëg ne bi ngay ñëw ci man mi maa mararta romboo bi xajarin ci doj wala sajarin doo romb benn garab wala madarin doo romb benn montagne montagne wala benn doj wala benn montagne illa astaghfara laka lu dul montagne woowa ma lay jéggalul yàlla doj yi ñu ngi lay jéggalul yàlla garab yi ñu ngi lay jéggalul yàlla ngir rek li nga tax li la tax a jóg pour rek sàkku xam-xam sàkku loo xam ne daf lay jëriñ kon mbokki jullit yi ñu xam ne kon sàkku xam-xam lu bari njëriñ la yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa la waxaat benn xadis bu am solo nee na xuduuru majlisi xelmin afdalu min alfa rakaxatin wa iyaadatu alfa marid wa suhuudi alfi janaasa yonent muhammad nee na xuduuru majlisi xelmin fekkee jataayu xam-xam nee afdalu min alfi rakaxatin moo gën yàlla junne rakk xam ngeen ne benn ràkk la li ci nekk ci ngëneel kenn xamunum tollu waaye junne ràkk yoo xam ne nit ki da koy jullil yàlla borom bi subhaanahu wa taala te sellal julli ga yonent yàlla maa man nee na teewee jataayu xam-xam moo ko ëpp doole waxiyaadatu alfi marit ak seeti junne nit ñoo xam ne dañoo feebar nga xam ne feeti nit ku feebar ni mu bëree njëriñ nga xam ne yonent bi nee na boo doxee jéego boo seq ñu ngi lay bindal tiyaaba di la faral bàkkaat ba ngay xàgg waaye junni nit ñoo xam ne dañoo tëdd feebar nga dem seeti leen la muy xam-xam ngëneel ak la muy baax baax fekkee jataay xam-xam moo ko ëpp doole waaye yonent yàlla maama nee na fekkee jataayu xam-xam moo gën itam wa suhuudi alfi janaasa fekkee junni niiw yoo xam ne dañ leen waajal sang leen jullee leen nga fekkee ko bañu rob leen yépp ngëneel la caay nekk la muy yaatu yaatu Euh, nga def ko fekkee ci junni niw yoo xam ne yëpp fekkee nga rob gaag lépp ak jullee gaag yëpp yonent yàlla maama nee na fekkee jataayu xam-xam moo ko ëpp doole kon nag mbokk julli di loola tax tey ñun suñu dërsu bi ñu tàmbalee ko ci xam-xam ak wax li nga xam ne moo nekk ci ngëneelu xam-xam doyo na sëkk yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam lim wax ci addis bi may bëgg a jàng yonent yàlla muhammad nee na lillahi madinatun taxtal xars min miskil asfar ala baabiha malikun yunaadi kull yawmin ala man saaral xulamaa faqas faqad saaral anbiya wa man saaral anbiyaa faqad saara rabb wa man saara rabbu falahu aljanna yonent yàlla Muhammad nee na inna lillahi madinatun yàlla am na benn dëkk boo xam ne dëkk booba taxtal xarshi ma nga nekk ca suuf xarasu suñ boroom min miskir asfar yàlla nga ko liggéey ci wurus woo xam ne wurusu asfar la mooy wurusu sell wu laab ala baabiha malikun yunaadi kulli yawmin mu ne boo demee ca buntu dëkk booba am na benn malaaka boo xam ne ma nga toog ca bunt ba di woote bés bu ma ngay woote di wax naan ala yëg leen ne man saaral xulama képp ku siyaare ji borom xam-xam faqat saaral anbiya siyaare ji nga yonent yi yépp nag képp ku siyaare ji boroom xam-xam rek daa mel ni yow siyaare ji nga ab yonente wala siyaare ji nga yonent te it nag wa man saaral anbiya képp ku siyaare ji yonent yi kooku kay faqat saara rabb daa mel ni koo xam ne siyaare na boromam subhanahu wa taala te xam ngeen ne wa man saara rabbu yonent bi nee ku siyaare ji boromam falahul jannatu euh, na xam ne aljanna mu ngi koy xaar ëllëg kon yaakaar naa xam-xam loolu rekk doyoon na ci yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam dellu waxaat beneen hadis bu am solo addis ba mooy yonent bi dafa wax ne xel ma fa inna taxallamahu lillaahi xasanatun wa talabahu xibaadatun wa musaakiratuhu tasbihun wal bahsu anhu jihaadun wa tahlimuhu liman laa ya'lamuhu sadaqatun wa basluhu lil ahlihi qurbatun li annahu maalimul xalaali wal xaraami wa manaaru sabili ahlil janna yonent yàlla Muhammad nee na taxallamu na ngeen xamlu alxel ma xam-xam fexe leen ba góorgóorlu jàng xamlu xam-xam mu ne fa ina tahlimahu naka xam lu xam-xam li ngir yàlla rek képp koo xam ne dangaa wut xam-xam te yàlla rek tax defoo ko ngir dàgg sante defoo ko ngir ñu diw dafa xam xam-xam defoo ko ngir dajale mbooloo waaye danga koo def ngir yàlla dong dong dong nee na loolu képp koo def danga am xasanatu yiw yàlla da la bindal yiw woo xam ne wu rëy la nee na xam-xam boo boo xibaadatun képp ku jog di sàkku ji xam-xam na xam ne sàkku ji ngay dem di sàkku ji xam-xam loola yàlla def la koy defal yoolu jaamu yàlla wa musaakiratuhu tasbihun képp koo xam ne dangaa nekk ci xam-xam da ci fàttilante fàttilante ga ngay fàttilante ci xam-xam yàlla def la koy defal yoolu kuy sabbal yàlla mu ngi mel ni yaa ngi fàttilante ci xam-xam waaye daa mel ni yaa ngi wax subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ak loolu ni mu bëree ngëneel wal bahsu anhu jihaadun nee na képp koo xam ne yaa ngi gëstu ci wàllu xam-xam diir ba ngay gëstu nanga nga yëg ne yaa ngi mel ni koo xam ne dangay ngay ci yoonu yàlla tax lii mu tahlimuhu liman laa moo sadaqatun xam-xam mooy koo xam ne képp yaa ngi koy képp koo xam ne yaa ngi koy jàngale di ko xamal nit ñi xamal googu nga koy jàngal nit ñi di leen ko xamal nee na loola day mujj nekk sadax day mel ni sarax boo xam ne yaa ngi koy génne di ko jox nit ñi o wa basluhu li ahlihi xurbatun nee na di yulli xam-xam di jox ku ko yeeyoo nee na loolu xurbatun dafay tax nit ki jege boroomam subhaanahu wa taala kon nanga nga yëg ne képp ku yàlla may xam-xam nga di ko yulli di ko joxe yaa ngi gën a jege sa borom subhaanahu wa taala mu neex gat li annahu ndax xam-xam kat maalimul xalaali wal xaraami mooy màndargaay yi nit ki mën a xamee li dagan waaye xam-xam mooy màndarga yi nga xam ne ci la nit ki mën a xamee li nga xam ne dafa xaraam waaye xam-xam wa manaaru sabilu ahlil janna nee na xam-xam mooy soorooru ahlul janna wala nga ne mooy làmp bi leen di maanaam ñi dem àjjana xam-xam mooy li leen di niital pour ñu mën a dem ca aljanna wala boog nga ne mooy seen tegtal bi nga xam ne moo leen di giddi ba keroog mu leen ay dugal aljana xam-xam nee na wa huwa al fil wasa sax na xam mooy li nga xam ne mooy wettali nit ki euh, bés boo xamee ne nii dafa wet waaye wa yi bu fil qurbati xam-xam mooy ànd ak nit ki ci jamono yoo xamee ne wet na amoo kenn ku la wettalee na nga xam ne xam rek mooy li nga xam ne mooy sa wettal waaye wal muhdisu fil xalwati xam-xam képp koo xam ne danga ñàkk koo xam ne moom nga waxtaanal na nga yëg ne xam-xam day nekk sa waxtaanu ndoor nekk sa grand place moom xam-xam boo ko xamee rek daanaka du soxla sax ngay xam koy waxtaan ak wala koy mën a nekkat ndax xam-xam dana doy sa wéttal waaye dana nekk itam sa waxtaan nee na wa dalilu ala shara nee na xam-xam mooy tegtal nit ki ci jafe-jafe bés boo xamee ne dangaa nekk ci shara sax mooy firi koom bés boo nekkee ci koom koom nga lum kumb kumb rek xam-xam moo tegtal ba ngay mën a teg sa tànk ba bu dee xalal dana tax doo beew xam-xam mooy tax doo beew bu dee lépp lu la yàlla mën a may rek ak lu mu bari bari rek xam-xam dana la giddi tegtal la ba nga xam ne doo mën a beew ca loola waaye wal muhiinu ala dara xam-xam mooy dimbale nit ki ci ay lor ba nga xamee ne lor wu la mën a gàllankoor rek danga nga mën a xam fa ngay teg sa tànk ba doo saalit waaye doo def loo xam ne yàlla borom bi subhaanahu wa taala du ko bëgg waaye wasallaahu alal ahdaar nee nañ xam-xam mooy li nga xam ne mooy ngànnaay li nga xam ne moo lay dimbali ci say noon ba sa noon yi yëpp nga mucc ci ñoom kon ku bëgg mucc ci sa ay noon rek na nga jàng xam xam ndax xam-xam dafa bokk ci li nga xam ne mooy dimbale nit ki ci noonam wala wasaynu indal aqila nee nañ xam-xam mooy taar ci say nawle soo bëggee xam taar ci say nawle ci say morom ñoom ñëpp nga ëpp leen taar gën leen a rafet taaru saayir ak baatin yépp nee na na nga xam xam-xam ndax xam-xam mooy taar nee na yar foo laaw bii aqwaaman xam-xam mooy loo xam ne yàlla da cay yëkkati aw nit fa yajxaluhum lil xayri qaida mu def leen ñuy xomat nit ñëpp jëmee leen ci aw yiw xam-xam moom la yàllaay tàggatee ay nit defar leen ñooña womat aw nit giddi ay nit ñoom ñëpp ñu jëmee leen ci aw xiw loolu li ko man moom mooy xam-xam rek waaye wa aimmatun yuqtada asaarum xam-xam mooy loo xam ne euh, dafay def nit ki a aima njiit njiit loo xam ne daañ mën a roy euh, ci moom kon xam-xam moom rek mooy defer doomu aadama def ko njiit ba ñëpp di mën a roy ci moom ba ku roy ci moom jub wa yuqtada bi afaalihim ñuy roy ci ñuy roy ci ñoom ci seeni jëf waaye wayantahi ilaa rahyihim ñuy bàyyi e, lépp lum leen tere kon xam-xam moom rek mooy li nga xam ne képp ku ko am nit ñi daan roy jëfam waaye lum tere nit ñi itam ñu mën koo bàyyi te buñ ko bàyyi itam daara du leen ci fekk loolu xam-xam da koy def bokk na ci li xam-xam di def mooy tarqibul malaika fi xalqihim maanaam xam-xam day tax nit ki ko am malaaka yi dañuy bëgg sa jëmm ji dañ koy xemem dañ koy fonk wa tamsahum bi ajis bi aj nixatihim malaaka yi dañuy mujj sax di ñëw ngir bëgg guñ la bëgg di jël seen bagg di la raay di la fon ngir xam-xam bi nga xam ne moo nekk ci yow wa yastaxfiru lahum kullu radbin wa yaabisin xam-xam ku ko am yàlla borom bi subhaanahu wa taala nee na wala yonent bi sallallahu alayhi wa nee na lépp loo xam ne dafa tooy mbaalu wow mi ngi lay jéggalul yàlla yow mi nga xam ne yaay sàkku xam-xam wala yow mi nga xam ne yaay sàkku xam-xam ba am ko waxitaanul bahri waxawaamuhu mbooleem li nga xam ne mooy jën yi nekk ci biir géej yi ak yenti yenti yeeg yi raam ak yépp ñu ngi lay ñaanal yàlla di la jéggalul yàlla wa si baaxul mbooleem ndog ment yi nga xam ne ñoo nekk ci jéeri ji waaye anxaam yi muy juri kër yi ñoom ñëpp ñu ngi lay ñaanal njëggal waaye itam di la ñaanal li nga xam ne mooy yërmane mu ne li annal xelma xayaatul xuluub minal jaali mu ne xam-xam mooy loo xam ne mooy dundal xool waaw mooy dundal xool ci réer ba nga xam ne xool bi dana mucc ba du réer xol bi du sànku xool bi dana nekk xol boo xam ne day dund dund goo xam ne kenn du mën a natt dund ba na muy mel waaye xam-xam nga masaabihul ah, absaari mina sulmi moom mooy làmpab làmp bi nga xam ne mooy leeral bët yi bañ gis fi ñuy teg seen tànk ci jamonoy lëndam ba waxtu lëndam amee làmp bu leer bi nga xam ne mooy niital bët yi bañ xam fu ñuy jaar ba xam fa ñuy teg seen tànk ba fa ñuy teg seen tànk du ñu fa kastalu waaye dara du leen fa yàqal dara du leen fa lor loolu mooy li nga xam ne mooy xam-xam xam-xam mooy loo xam ne yuballiqul xabd min al xilmi manasil al axyaar wala boo nga ne yabluqul xabdu minal al xilmi manasil al jaam bi dana jaaree ci xam-xam ba yëgg ci maqaamaay axyaar yi mooy gaa yi nga xam ne ay tànneefu yàlla lañ ñooña yàlla dana la may seen garaat te dara du ko waral lu mooy xam-xam kon xam-xam lu am njëriñ la wa dara jaatul hulaa xam-xam dafay joxe dara ju kowe joo xam ne nit ki dana ko am fi dunya ci àdduna wal axirata it danga ko am ci àlaxira ndax boroom xam-xam yi ni ñi nekkee ci kaw suuf jaami yàlla yi di leen siyaare di leen ndokkeel noonu ca yowmal qiyaam itam bu ñu duggee àjjana noonu la demee di leen siyaare ci seeni losma waaye itam di leen ndokkeel xam-xam mooy loo xam ne wa tafakkuru fii di xalaat ci wàllu xam-xam yax di dafay tolloo koor koor li muy bari bari ngëneel ak lu muy baax sooy xalaat ci xam-xam rek yàlla dalay bindal tiyaabo ju toll ni mu daara wa tax daarasatuhu tahdilul qiyaam jàngalante alquran nag di bind eh, di ko joxe ñu la koy jox jàngalante boobu di xew ci daara yi ak la ca xaju loola itam dafay tollook kuy naafila naafila weeru koor bii toosulul arxaam xam-xam ci la nit ki mën a jaaree xam nañuy jokke bokk xam-xam rek ci la ñuy jokke bokk goo xam ne boo ko jonkee dootu dagg mukk wa bihi yuhraful xalaal wal xaraam xam-xam mooy tax nit ki xam lu dagan li yàlla daganal moo xam la ñuy lekk la moo xam la ñuy jëf la yépp nga xam ko waaye la yàlla xaraamal itam nga xam ko moo xam wax la moo xam jëf ju feeñ ak ju yépp xam-xam mooy niital nit ki ba nit ki mën a xam loola xam-xam daal dëgg-dëgg waxoo imaamun moo imaamul xamal waaye nag wa taabiahu mooy jiite jëf yëpp bépp jëf ju nit ki di def moo xam jaamu yàlla la ak lu mën a do rek la caay jiddi nit ki ba nit ki mën a tegee ci yoon ci njub loola mooy xam-xam waaye xam-xam mooy imaam bi waaye xam-xam mooy maamoom bi itam nag kon xam-xam mooy jiite waaye xam-xam mooy nekk maamoom kon nit ki pour maamumam rafet faaw mu xam xam-xam waaye nit ki pour imaamam rafet faaw mu xam xam-xam xam-xam mooy loo xam ne yulhimuhu as-suhadaaw yàlla moo koy yenkewal gaa yi nga xam ne ñoo texe yàllaa leen koy yenkewal ñu may leen ko waaye woo wa yahrimuhu al ashqiya yàlla borom bi subhaanahu wa taala moo koy xañ ñi nga xam ne ñooy eh, ñi nga xam ne dañoo texee di kon loolu hadis la boo xam ne bu gudd gudd la boo xam ne yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo ko moo ko moo ko wax ki solo hadis bi mooy abu sayqi ibnu hibaan doom na abdul barri soloo na ko muy hadis boo xam ne bu doywaar la waaye bu bari njëriñ la boo xam ne li wax ci xam-xam néew na nga dajeek hadis bu ko wax su ko defee kon mbokk jullit yi ma ñaax sama bopp di leen ñaax ci nañu sakku xam-xam waaye nañu góorgóorlu xam sunu diine incha allahu taala bunt bi ñu hubbi fas nañuy dugg ci al islaam jàngale ci lan mooy ponk lislaam yi waaye daañu jàngale lan mooy liimaan suñ ca paree daañu teqale benn bu muy liimaan ak islaam suñ ca paree daañu dugg itam ci xeeti xibaadaat yi daañu tàmbalee ci li nga xam ne mooy laab suñu pare ci laab itam incha allahu taala daañu dugg ci li nga xam ne mooy njàpp waaye daañu dugg ci tiim waaye suñ ca paree itam daañu dugg ci julli waaye daañu dugg itam ci asaka koor daañu dugg itam ci nga xam ne mooy aj màkk mboolem xeeti jaamu yàlla yi yëpp incha allahu taala fas nañ xii na eh, dugg ci ak yéen ngir rek njëriñ li nga xam ne xam-xam xam na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na faqihun wahid ashaddu min asheytaani min alfi xaabidin benn faqiix eh, bu dëgër moo gën a dëgër moo gën a tar fuuf ci saytaane ci junne nit ñoo xam ne dañuy jaamu yàlla te nekkuñ ay faqiix moo tax nee nañ dafa seen benn waaye ca jàkka ja muy jaamu yàlla mu jog dem nag ne ah xaaral rek ma dem daal di yàqal ko ba nga xam ne la muy def da koy bàyyi bu muy ñëw nag bay dugg si ci jàkka ja mu seet ca wetu ndeyjoor ba mu gis fa benn borom xam-xam bu tëdd di nelaw mu mujj bàyyi ko doon julli daal di ñëw ca borom xam-xam ba di ko yeetal di ko upp ngelaw lu sedd pour bañ mu yeewu ñu ne ko ah yow looy def nii kii am ngay jaamu yàlla ci jàkka ja nga demoon bëgg koy yàqali gis kii tëdd di nelaw. nga mujj jàdd fa mu ne ah keedee comme jàngut moom daanaka la muy def jëf ja du am solo la muy def jëf ja du mat la muy def jëf ja du sell jëf ja sax boo moytuwut yàlla du ko nangu waaye kii di borom xam-xam bi tëdd moom bés bu yeewoo lépp lu mu def yàlla borom bi subhaanahu wa taala nangu ko soo doon misaal ñoom ñaar daal kee di jëf te la muy jëf xamu ko xamu ko daa mel ni ku doon ñaw rek te fasoo bopp ba daa mel ni ku doon ñaw rek te fasoo bopp ba su paree bu roccee rek sero lay am du am dara kii nga xam ne nag moo tëdd di nelaw moom lépp lu muy jëf mooy doon jëf joo xam ne daa fas bopp ba jëf joo xam ne leetar bu am tamponné lay doon jëf joo xam ne jëf ju sell lay doon nga xam ne su ko defee su paree yàlla borom bi subhaanahu wa taala nangu ko jëf lay doon yoo xam ne su paree malaaka yi euh, publicité ko nit ñu baax ñi publicité ko muy jëf joo xam ne day yëg ca rafiqul ahla su ko defee kon loolu mooy njëriñal xam-xam ak njëriñal ki nga xam ne moo xam xam-xam moo tax ñun ñu bëgg bëgg xubbi bunta jàng ak jàngale eh, laayee ci biir sama bopp waaye laaye leen ci seen laaye leen ci biir yéen jullit yàlla yépp mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñoo ñuy déglu gannaaw loolu nag ñu ngi sant yàlla borom bi subhaanahu wa di di jéggalu ñëpp nag di wax ne lépp lu ci nekk ci njumte yàlla yàlla borom bi subhaanahu wa taala jéggal ñu ko yéen ñi toog di déglu loo xam ne am na njuumte it maa ngi ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa mu jéggal leen waaye lépp lu ci nekk tiyaabo boo xam ne daañ ko ci amee yàlla yàlla boole ma ko man ak yéen boole ko jullit yàlla yépp ci barki yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu axukum fillahi imam adama toob Dakar cité santé